Uh... ahlan bikum sa Seck moo jox loxo njiit réew mi Macky Sall ñoom ñaar ñu ree reetaan ba seeni bëñ feeñ mbooloo ma ko fekkee tàccu kontaan ci li ni mel vox populi moo ñu ko xamal laas yéen a mel ni ku naan ko cay politique tey ñuy xiiroo ko ŋaayoo xasante suba ñu joxante loxo te bi élection yi jàll yàggut lii ku ñu ko waxoon sax doo ko gëm niki démb nag la am ci dimanche bi bi ñuy fàttaliku ak a sargal Ousmane Tanor Dieng bi jiite woon PS te génn àdduna a àllaaxira génn na àdduna waaye terewul dajale na Sénégal yëpp ci bésu démb bi a ah, yaw seetal Macky Sall Idrissa Seck maali Gakou ñoom ñëpp a ngi fa woon waaye Macky nag fa faa doxee yett boobaale maanaam li jëntiwaale ay mbiram tagg sekk Seck lu taxawaayam a ah, yaw seetal Macky nee na ko yow Idi li ñu boolee moo ëpp fuuf li ñu tàqale réew mi moo ñu boole te lii may seede ci Ousmane Tanor Dieng yow mën nga ko dëggal Ousmane Tanor réew mi la jiitaloon ci fekk na ko d'accord naa ak yow li nga waxee dëgg Tanor ku bëggoon a inspiré sax ci moom ngay xool ngir roy ko Aminata Mbengue Ndiaye bi ko wuutu tey ca PS ne Tanor lu du réew mi ñorut ko woon njiitu réew Macky Sall ne Tanor kay bàyyee nañu leçon buñ mën a jàng ci suñ dund gi seen kàddu yaa ngi ci la Soleil yéen a kaay si du quotidien ne Macky jox na loxo Idi ba pore woo Mali gàkku na rakkam la turbine yéen a kaay na ko woon a ku jégi ngir ñu ànd nekk benn liggéey réew mi waaye li yéem ñëpp kay mooy Macky fa doon tagg Idrissa Seck di ko xalamal Idi tamit delloo ko ko waa grand place yéen a na hee def leen ndànk nag est ce que kon foogu leen opposition bi ñu doon wax naan am na ñuy dil ak Macky est ce que nekkut idi ndax li ñu def démb tey na xelan ah. réew mi yéen a na ko li nga waxee dëgg ndax xalifa sàll moo gënoon a jekk ñu woo ko démb ci fàttali ko Ousmane Tanor ndax ñoom ñoo àndoon PS te ñoom ñu ko organiser ñoom Aminata Mbengue Ndiaye oowuñ Khalifa Sall naka noonu Barthélémy Diaz woowuñ ko kon mbir yi am na lu ca lëndëm de le quotidien yéen a kaay na ñoom Aminata Mbengue Ndiaye kay fa ñoo weere daanu ba xalangu ndax occasion la woon démb ngir ñu jubóole waa PS yëpp Khalifa Sall Barthélémy Diaz waaye woo Sénégal ñëpp ba pare tëb ñoo xam ne ñoo waroon a jiitu xam ngeen ne loolu nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne Barthélémy Diaz même buñ ko woowul ca mbiru Tanor Dieng ya moom ma nga ca leneen lijjanti Guy Marius Sagna lu ko génne ci kaso gi ndax moom bañkat la kat la ñeme dëgg nag waaye laa yéen a kaay nee na wax na nag ba saaraar dérapé wax lu garaaw ayaw seet settal Barthélemy Dias nee na Guy Marius Sagna xam ngeen lan moo tax mu des ca kaso ko ba léegi parce que moom ab chrétien la waaye bu doon mbàkke-mbàkke wala mu sant si wala yeneen sant yi konoon génne nañ ko kaso bu yàgg l'observateur dëggal kàddu yi la mu dëggal moom nguuda mbuub jàngalekat gëstukat mooy ne dialogue national bi politiciens yi ñoo ko yàq ndax mënuñoo fexe ba jubóo ci seen biir seen bopp rek lañ ne direct news na ko may ma ngir yàlla moom premier adjoint au maire am ba Babacar Mbaye Ngaraaf nee na Aliou defagul dara ci ay njombe moo rek bu leen betti mukk ngeen dégg na jaay na mbedd géejawaay ya suuf sa wala sax mu jaay lycée Limamou Laye ba ba ci sax jumaa ya jàkkee ñeme na koo jaay libération na ko nag Aliou Sall moomu pétrole Sénégal ba gaz bi li ko ci tuumaloon doyen des juges attekat bi daxañ na yëf ya yëpp jébbal na ko procureur bi fi mu toll nii Serigne Bassirou Gueye moo ci des moom pare na ci procureur moo ko war a jël mottali li des li desee njiite di mu ne ma ne histoire bi jeexagut ci lay Macky di pare ci sénégalais kon kay dana laaj troisième mandat la mu laaj moom tribune yéen a kaay mooy Semi Keba bañkat boobu di bañ ay français faak yi ni mel fa ñëw Sénégal waaye bi mu wàcc aéroport ci lañ ko pangti pangtee pare ko delloo ji les écoles yéen na avion Bruxelles Airlines ñoo bañ na duñ ko yóbbu ndax daw wàllu kaaraange yéen a kaay bi na monte pourtant moom xàttekat bi moo ko convoqué woon mu war a layoo waa BCEAO way tàggat yaram bombardier nee na CNG bi nañ dàq kat ji Aliou Sarr jëlee ko ci loxom nguur gi na ko jox ñeneen te tey làmb ji mi ngi ci ay jafe-jafe yu du xaddu jeex moom bombar bombardier nag si sunu làmb nee na gis nga bu amut combat ji fay tekki ngeen moom bàyyi bëree nay leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne réewum Sénégal nañ jóg taxaw jël suñuy matuwaay jàngoro ji bon ja nekk Chine coronavirus ah buñ ci waxut ndax l'observateur moo ñu xamal ne jàngoro ja ma nga réewum fa dell te moodu lu tolloog si ñaar fukki junne ak ñett ci seen dëkk fa ngeen nekk ca Italie ndax feebar baa nga ca biir ba tax Pape Diaw jiite APR bu Italie nee na fi mu toll ni ñun jàq nañ de sénégalais yi bëri nañ Italie te feebar baa ngi ci réew mi mënuñoo dem mënuñoo dikk ñi ngi tëju suñ néegi kon kat ñi ngi yooxu wàllu de ñun moodu moodu yi yéen a kaay bi ne tey ji danañu amal ndajee ndakaaru ngir sàkk ay pexe ca la am Italie ak doomu Sénégal ya kuréel gi ñànk wér-gu-yaramu doomu aadama yi ci àdduna bi nee nañ fukki réew ak ñett ci réewu Afrique yi buñ moytu jàngoro ji bon ji dana fa dugg jaaree itali ndax seen doom ya fañ faa bari bokk na ci réew yooyu nag ne nañ aay waa ma ne al wiqaayatu xayrun min al ilaaji fagaru moo gën faju na leen jóg fi mu toll ni jàq jot na de ñaata moodu moodu ñoo nekk Italie kenn fa xam luñ toll aay yàlla na leen yàlla musal ci jàngoro